for naa def yoon def nga sa yëf. maa ngi def coono waaye. merci. ci loo nekk nag. maa ngi nii xanaa namu la. ah maa la def ma jongo ma de. ay tool ñu ngi def baax na daal. ça va. ça va bien merci. xoolal damaa ñëw pour ñu waxtaan. sérieusement. ndax ba may ñibbisi France. dama àndaale benn projet. waaw. pour ibu salon de massage bi. d'ailleurs sa waxtaan na ci ak dara. ah. mais bañu ñu waxtaanee dara daram doy ma. ah oui c'est vrai parce que dara bëri na wax te tankam gàttu. daal di dama rey yow. Ya, ba pare man. li may liggéey ànd ak wax moo tax moo xoolee xale fecckat yépp sa jikko moomu ci doy ndax yow teye nga rek la nga si tànku gudd mu bëggoon na bu su ma ubbee salon bi ma teg sa loxo nga géral ma ko ndax day nga ma ci Khadi. Na na ba yau. Lalo? Yan ang biya. Oo. Oh. Ah. Pero kung makalatang ka hmm. niya, bibilan ñu do taf ko mais instant bii nii moom Ndeye Philippe deur bi la. waaw ay eh, lon ko lañu ray gaañ lañu wa waaw neexoon ay sax. ay xam nga ay ñaar ñom da dañ and ko ci agal yor seen jikko ku nekk di yàq sa morom kon bo taf jey ci keneen gi rek ne mo jox information lu jëm ci keneen gi tamit. waaw te li ma gis instant bii nii li mu soxla deug deug deug mooy biran nañ ko génneel facilement. thì gelecek lontong yegg si. mais nag dikkoon. dikkoon mi ngi ñëw léegi. waaw mi ngi mais maa fekk di ma. dégg nga dégg nga dégg nga dégg nga sama xarit nga Khady ça va. ça va bien. merci. ça va bien. sant yàlla. Khady. inspecteur. waaw ah Badiane. wow waaw dafa waaw. yaa ngi saa Badiane namu naa la de. maa la. ça va. ça va. d'accord ngeen bëgg di amee doom peut-être da yow ngeen bëggee doom xale yi. ah Badiane namu naa la. naa la raw de. kañ nga ñëw. sànq di laa ñëw. léegi léegi nii. sànq waaw est-ce que. Tafa na nga def. fi rek namu naa la. fi rek ça va. ça va. loolu muy réer yi xale yi dafa kontaan doom ji mu am dafay nii. dafa bëgg a bëgg ndax doom ji rek. waaw doom dafa neex. ah doom sa taal. waaw sa taal. waaw. yoon dee sonn woon rek yaay ndey fi li ko téléphone léegi. ah. waaw léegi la moo envoyé vocal ci WhatsApp. waaw. wax ne day ñëw ah semaine prochaine. Ah? na eh, ah? dina ñëw semaine prochaine. Eh, alhamdulilah. ma si jaaxal nag mooy moom suy ñëw day fekk tuuti ñëw loolu day dara loolu da siy dara. xam nu ñuy def. Mm-hmm. nañ ko def tudd biir néeg. maa ngi sa ginnaaw. saa yu ñëwee. Mm-hmm. ñu ngénte. yaay bàjjanam yaay bàyyam. waaw waaw maa ngi sa ginnaaw. cay ngénte bi <laughs> ah. ay ngénte lii kon baax na. waxuma dara sama benn poñ bi nga xam moom laa moom laa dese. mooy la ma ko koy xaaral sama benn poj bi ma desoon. su boobaa ba di jóg bàyyi ko. bàyyi ko nay bàyyi xale yee bàyyi ay mel bu ba ma teral la. ay waa mbir ay piis laa lay tegal. xam naa loolu ma xam loolu mbeen dinaa ba àddina ci xam ne teral na ma xam loolu. ndax mbeen dama ay ngénte lii. ndax damaa fas yéene ngénte sama sët bii. dañuy rek. na man yu de ci dara bëggatuma dugg ci lenn lenn lenn loo xam ne damay indi benn problème parce que récemment rek laa génn prison te buggutuma def lenn loo xamante ne damay boole justice sincèrement parler loolu moom bëggatuma ko caaxaan yéeg yooyu noonu moo dama ko tegee na ne parce que xam rek mooy loolu. non je mhm. gis nga li xalaat nii du ci am. Mhm. nga affaire ñàkk fayda jël ay góor a jigéen di leen màkkaroo. noonu lépp dama kaa bàyyi léegi. ñu sax. man su ma ñibbisee Sénégal. liggéey moo tax. lépp lu ñàkkalit fay doxatuma ci. ah bu nekkee loolu la de amul problème bu nekkee fulla la ak fayda rek ak lu baax loolu moom wax dëgg duma la ko bañal parce que sama xarit nga yow mënuma laa ah, bañal dara xamu nu ma lay def loolu moom du doon problème moom amul benn problème mun nañ cee mhm. ànd moom amul mhm. problème. léegi damaa bëggoon rek. mu uh-huh. utal ma ñaari fii. ah bon waaw pour ñu jàpp lañ ci liggéey bi. ah d'accord loolu problème. waaw loolu problème am naa ay xarit ay xale yoo xamante ne xale yu yiw lañ set nañ. Mhm. waaw jub nañ amuñu problème daal loolu moom du doon problème yow ñoo faat. man ah, bàyyi sa loxo man nag aw ma toogaay chéri. doo toog a xam fan laa jëm nii. Ah. kasoor kër Ndeye Ramone ndax ba ma ñëwee ba léegi gisuma ko. dangay font nag. lii eh, chéri bàyyi rek ma daal mën ngaa toog ak yow. ak yow Haba. Haba nuna ma? Haba biya. An apa? jam. An su jam wa. Bi kanam, bi kanam bi laa fi daan fekk. Lu xew? Dara. Dara la kay lan la di ko? Dafa saa dama bëgg ruslu. Tafa Sarr dama kaa bëgg te yàlla rek tax ñu waxtaan suñu waxtaan mariage Tafa Sarr léegi faaleetuma talatuma sax ndax ngénteem Hadi, jóge. Khady. informasi soxla ay information ci Ndeye Fili parce que dama gis Fili di doxantu ak carte police ma bëggoon rek nga éclairciral ma gis nga boo ko defee lii dama la koy jox xam naa ni nag bariwul mais dinaa la ci ma defalee li ma yow ya, ku yabaate ya, iya, nga yow mën ngay jéem a yow yaakaar nga ne man man nga ma jënd nga may corrompre pour des informations secrètes en tant que inspecteur. oh moo nëy ban inspecteur lii benn délit duma ci fekk infraction su amee. yow moomu yaa ko def un jour dégg naa Ndeye Fili di wax ne xam na vrai inspecteur Ndiouga fu mu bon j'en déduis que yow foo nga kon xam nga ni xam naa bu baax li may wax li ma bëgg nag mën nga ko def wala mënoo def mais Khady yow arrête est-ce que mesuré nga délit bi nga def xam nga li la ci mën a fekk yow mën ngay menacer léegi ah man duma ko ñuy jënd dégg bu baax li ma la wax su fekkee si man nga yaakaare ay information concernant Ndeye Fili dóor nga sa loxo foo xamul te gis nga sa lii soo jógee yaa ma gën a xam fi ko

sama fecc bi non def ma doon doon def donc doon rek pour Mais je may def waaye je intéressé je moi toujours waat bu baax mën koo déglu na de avant loolu Pama dafa amoon la bëgg wan. lan la woon. Pama naa ko Junior. nii. mais man la. Pama li yow la gis nga ba mu ma ne yow la damaa sax ruus. ki fi mu nekk ni min këram tëdd dara mënu ko Ima nga baal ma de dama bëggoon nga ñëw ñu julli ñaari ràkkal nga jiite ma ba pare ñaanal alhamdulillah bismillah loolu mo tax nga gini. nii ah di ko dama bëgg nga dal gis nga yi ngay xalaat nii amul benn sens gis nga li ngeen nas bis bu jógee ci njënteem li dana ko def te dëgg Sarr ngénte li intéressé wu ko doomam moo ko ñor Tafa Sarr bul fàttandiku la bëgg la bis bu jógee ci ngénte li dina dellusiwaat ba ci yow te dina la takk dina la taral fekke loolu tax ngay jooy fomp say romb ndax man xam naa am doom tuddee ko Seydina Mouhamad. sallallahu alayhi wa yaay def nga lu ma neex. sama papa tamit nekk sama xel. Mhm. comme gisuma gisuma ko sama papa euh, ma bàyyi fi benn image boo xamante ne sax dinaa ko xoole mhm. moo taxoon sama xel nekk ci ma tuddee ko Mouhamadou si Tafa Sarr. Ah, macha allah sa xel rafet na. li nga def neex na ma rafet na dëgg yàlla. moom na nit ñi dañuy bàyyi ba bu jour xew wala jour tudd ñu lay wax sa doom bi di ko nëbb ak yooyu noonu. moom ma ci yooyu. yaay si Tafa Sarr wër naa ko Brésil ba sonn waaye gisuma ko de kasoo kasoo dem naa fa fu ma xalaat ni kasoo bu ma xalaat rek dem naa fa. mais hmm? fekk man nag dama xaw a inquiété wu parce que damay ragal ndax teewul. ah wala ñu libéré ko bu yàgg daal man daa affaire daal jaaxal na mu trop. loolu lu mën nekk. yàlla tere yàlla bu mu am yàlla bu mu am ah. mais terewul nag maa ngi continuer sama recherche. laa ilaaha daal sama njot daal dafa ñaaw. mais nag bul jaaxle damay continuer def recherche ba tey. naa benn benn sama torsion nga mel ni kii toog ko ci mag yooyu. ana nit ki. nit ki daal dem na. fu mu dem lu mu wax. ah lan la wax man kay jéem naa baab ko ba sonn plan bi échoué na loolu moom leer na xaalis baa ngi nii demul fenn nangu ko sa jël. te nga bañ a xaw ma actuellement nii nii nii nii nii naka laa leen defaat. léegi nag. léegi nag man daal dada. waaw ma rek ma wax la. ah marché wu. bee bi ñu xam nga mën a wax leen lii ba fa ñuy mujjee ndey fili day liggéey ak police. waaw waaw. parce que su fekku su fekkoon liggéeyul ak police yenn information du ko am ndey fili àdduna bi fii yëpp képp ku fi taxaw mën na la ne yow yaay kii wala yow yaay kële information bu ci nekk am na ko ci nit xam na lépp ci nit ñi. ndey fili nan la mën a nekkee policier nga nekk ci këram bi dafa génn. même bu fekkee liggéeyu liggéeyu police de kon li muy liggéey lu ma leer ba leer il faut que nga nekk ngan dim bandi wuyu yu mag yooyu ngay mën a doon wala nga nekk koo xamante ne dangaa xeex ay bandi. gis ñu ni xadi xam nga naa ni tu parce que daf ko jël utiliser ko ba pare rejeté ko actuellement ni lim ko jàppal dafa bëri mu leer na hmm, su ma jaaree ci moom affaire yi day dox. bu dee bu dojul lu jariñ voilà. يو سما يا كارتا سو السلام عليكم السلام عليكم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم la ilaha illa seydina muhammad salaatu wasalaam ala alhamdulilah rabbil alamin imaam hmm. damaa bëggoon nga ñaanal ma ñaanal ab jullit day yàgg naa sàkku ñaan te yàlla ci boppam moo ni ñaan leen ma ma may leen yonti yàlla muhammad tek ci ne ñaan nga nay julit lu baax la lan nga bëgg ma ñaanal imam ma bëgg nga ñaanal ma ci sama doom ji di dikkon ndax joyam yi muy joy bër ndurootul nit mu dakk ndax muy lekk ba suur di naan delluwaat ci boppam ngir mu mel na mu mel ndax sama doom ji sonn na trop loolu rek laa bëgg maji yao badugu ka sofa oh, moom oh, oh. boppam kenn xamul yabaram dugg naa ci yow badugu ka sofa picce moom boppam